sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. ci si kanam sama place laa jëlaat ci làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place ci làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre ak moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne ma yeb ma ba jël ma loolu dina dëggal boppam rek papa foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah rabbi te làmb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëre man ak jëf mbokki internet yi nga xam ne yéen ay bàyyi xel seen bi di Fekke TV ak seen làmb TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo jëm ci actualité rawatina tey ki nga xam ne moom la ñu dalal tey yaakaar naa ne miin ngeen ko ci jotaay yu baree baree bari ak moom ak Ada tey ñu war a waxtaanee moom lu bari Caada Fass jàpp jiñ ko jàpp nan lañ ko jàppee ba xam mi ñu koy dégg yu bari nañu waxtaan ak moom ci biir muy laay bu Ada Fass nga xam ne moo ko géréel compte officiel am bu Ada war a waxtaanee lu bëree baree bëri jàmbaar ñoo ngi lay nuyu di la maa leen di bëggee di leen fay ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana maa leen di fay bu baax a baax di leen dalal bu baax. laay bu Ada Fass ana aada aada aada moo ngi ci jàmm fu mu nekk moo ci jàmm bu baax a baax baat Serigne Bamba xam nga rek da nga ko tuumal ci loo xamante ne ni moom yoonam nekku ci quoi booy bi déchargé na ko nee na saa moom yoonam nekku ci yoonam nekkul ci affaire bi mais tamit ñun mënuñu comprendre li tax ñu téye ko foofu noonu. lan lañ ko téye bu ci waaw mais booy bi déchargé na ko booy bi ci boppam déchargé na ko nee na ko saa yi yoonam nekku ci procureur bi degg na ko juge bi dégg na ko avocat yi ñoom ñëpp dégg nañ ko. mais mais mais li tax ñu téye booy bi tamit man loolu laa ma loolu moo ma jaaxal quoi. bu bari nan aara dafa amoon ay pelante. non non loolu amul. amoon fa ay pelante. non loolu amul de loolu moom amul moom gars yi ko tuumal rek. billaay wallaay. yow bu mu duggee gisante ngeen wala gisante woo leen. non bu mu duggee déggante nañ téléphone ñoo ngi déggante téléphone waaw. waaw mais lu ma wax loolu sama diggante ak moom la nag xam nga rek yaa ma gën a xam. leeral ci may leen ma loolu rek ah yéen di ma seetaan may leen ma loolu rek barke Serigne Bamba waaw. ana ana jabaram yaa koy gis. boo may laaj laaj ma ci Ada Fass moo tax ana jabaram jala. man Ada Fass moo ma tax a jóg. man du ci jabar sa xarit la jabaram. waaw non waaye boo may laaj laaj ma ci Ada Fass. ana jaay <laughs> ana jabaru mbaxalu Saalum bi. ana jabaru Ada Fass. mbaxalu Saalum bi moom xam na lu may wax mbaxalu Saalum bi. mbaxalu Ada Saalum la jàppe Ada. yow yaa ko wax rek. non yaa Saalum rek laa wax rek. non yaa juju ak pataay bi. loolu rek fi wax rek. taay mais loolu noonu après la quoi loolu duñ ci waxagum. dañuy bàyyi ba Ada génn. xam nañ lépp xam nañ lu mu demee. kon da jàpp ne mbaxalu Saalum la invité Ada jàpp ko si yaa wax ba léegi noonu man dama tudd. mbaxalu Saalum man dama wax mbaxalu Saalum rek loolu rek laa fi wax. mais yow yaa bëgg jël wax ji bëgg ko yóbbu sori dégg sa xam nañ junj daan ñuy déglu mais man mbaxalu Saloum laa wax. mais junj dafa lan mooy waaye yow li nga junj moo mais ah, ku dégg waxuma ci aada boo may waxuma ci aada mais tey jànkonteel bi Fass daa mel ni wéet ah, billaay aada aada xale na mën nañu aada de ci bedd yeeg mooy borom Dakaaru barki Sëriñ Bamba loolu bañ bañ bëgg la aada lii moo koy def roi des arènes billaay wallaay tal kaso bii ñu ko téye moo koy def roi des arènes un aada góob moomu tëdd un an sax yi ñoo ngi ci estaf bi ay nitu démbam ñoo ngi ci barki Serigne Bamba ay nitu démbam laa la wax rek waxuma la àndandoo mi bees yi de àndandoo mi bees yi kenn ñu mu daan àndal gisoo si kenn àndandoo yu bees yi ay nitu démbam rek nga ci gis estaf bi ah ñu jege woon aada fas dëgg ñoo si nekk nii barki alxuraanul karim góose mañaan ah su ma limee damay juum sax billaay wallaay tàllaay gaa yi ñoo ngi ci bu baax a baax billaay ñoo ngi def tout pour génnee Ada Fass fu mu nekk mais dafa loo xamante ne naay sul mooy lan kii di Gris Bordeaux kii di Tapha yi dañoo seetaan booy bi te loolu du yoon. billaay wallaay Gris Bordeaux ak Moustapha Gueye dañoo. dañoo seetaan booy bi. lan lañ ko seetaan. jàppale booy bi booy bu mu nekkee ci tolof tolof gisuñu leen te Ada Fass amoon amoon na fi benn amoon amoon na lu mu fi am amoon na fi benn histoire bu ndaw bu mu fi amoon fan la dem que ñoom que ñoom Tapha Gueye la dem. est ce que mais li tax Tafa Gueye mënul génn taxawu booy bi jàppale ko Gris li tax mënul jàppale booy bi mais ko ñoom li ñuy woote si booy bi dëgguwul kon da nga ñoom Gris Bordeaux li ñuy woote dëgguwul barke ñuy woote si booy bi dëgguwul billaay wallaay tàllaay atte yëpp ñoom Tafa Gueye Gris Bordeaux kenn ne kenn ñëw si kenn amul ku si ñëw kenn ñëw si saay jàppale wuñu booy bi barke yàlla mbëri mag yi amul ku si jàppale booy bi bébé jën maa ngay maa ngay ziar bu baax a baax Ibu Afia ah caatu Kolobaan ah Laurent Ndiago tamit ah ak kii nii tamit plateau barki Seydina Mohamed ay jambaar la ñu saa yu leen autorisé yi ñuy wax si booy bi. billaay wallaay talaay mil pour cent Dakar bi moo ñu ñor mais Gris Bordeaux Tapha Gueye man la laay Moussa Gningue mooy sama nijaay Moussa Gningue yàgg na leen jëlal bi yaa ngi may dégg Gris Bordeaux yoo laay waxal Tapha Gueye yoo laay waxal sama nijaay dafa feebar tamit ñoom ba léegi teguñu fa sax seen tànk. Moussa Gningue def ba léegi teguñu fa seen tànk. laa lay wax ni walla yow déggoo lu ma lay wax. bàyyi loolu waay waaw yow saa yow yow xam nga li. Moustapha Gueye nag déggoo lu ma la wax xanaa eh, lu may wax dama ko ragal. Moussa Gningue mooy sama nijaay wala déggoo lu ma la wax seete wuñ ko. ak Moustapha Gueye ni meloon ak Moussa Gningue. yow xanaa xamoo mbëri loolu ko sax def booy bi da nga war a jàppale Ada Fass da nga ko war a jàppale. billaay wallaay tallaay Moussa Gningue day woo Ada Fass nee ko fan nga nekk Ada Fass ñëw. ku mu mënti nekk Arafat day ñëw wuy Arafat mooy mbërëb toog nañu ba sonn mu naan tey su nekkoon ndaw tolloog Arafat kon waa DRM day ñëw bu yàgg kon moom barke alxuraanul karim billaahi mais gars yi nañu génn jàppale Arafat quoi. nañu génn yi dëkk Fass tamit. waaw na ñëpp génn ñoo ngi tàllal suñu loxo ñëpp ñoo ngi tàllal suñu loxo ñëpp barke alxuraanul karim ñëpp ñoo leen di tàllal suñu loxo. suñu làmb lu wax làmb tamit. dañoo dañoo bëri ak ténor yi. dañoo seetaan booy bi nag. jàpp ñu ngi ci doon wax de. ah ci doon wax mais dañoo yéex wax dañoo yéex a wax barke alxuraan dañoo yéex a wax booy ba nga ba nga ba nga jàppee tag ci la ñu doon génn ñëw taxawu booy bi. mais si bi àtte Ada lan la jàppee Ada moom daal ñëw na ne deux deux ans un mois sursis ah, amaan na ko un million cinq cent ba pare bugg ko tëj un an te booy bi. taw la Ada deful dara. yaa ngi ma koy laaj sànq ba léegi ma ne la aada deful dara. mais affaire affaire affaire affaire yi doo xam. mais ñuy wax naan moto la sàcc yi ñëw gis ko faas ak yooyu. deful aada deful aada dara. soo ma tegaloon kaamil léegi ma fëgg ci sama loxo. taay lu ma ko barki borom daaru ci góor borom daaru rek laa yaakaar. billaay wallaay aada deful dara. mais gars yi dañu bàyyi yàq der quoi. aada deful moto moto bi dañu ko gis faas dëgg la kon naan dañoo gis moto faas. moto moto bi ñu ñëwoon dañ ko sàcc dañ ko ñëw faas gis ko. yow loolu yaa ko gis. dama dégg rek da nga dégg. waaw ah. man loolu déggu ko de waaw ah, loolu moom déggu ma moom dëgg neex yàlla mais man daal leen la am lu may wax quoi dañ jàppale booy bi quoi parce que booy bi ndaw la booy bi ndaw la làmb dafay yaakaar ay mbokkam yaakaar ko essaye comprendre booy bi nag génn gars yi jàppale ko nañ jàppale booy bi quoi billaay wallaay tàllaay wu génn. manqué Ada Fass man la def waa fas metti nañu trop da ngay dem entraînement sax gaayen day wét billaay. ndax aada aada mooy mbëru ndakaaru billaay wallaay bébé jeen kontaan nañu ni nga taxawoo booy bi kontaan nañu ah Ibou Afia nga tam kontaan nañ ci yow plateau kontaan nañ ci yow caatu Colobane ah kontaan nañ ci yow Benteñe yow tamit kontaan nañ ci yow ah cité bu anti su ma limee damay jum bugguma lim te ñoom ñoom ñëpp samay waay la ñu quoi moo tax bugguma bugguma di ñoom ñëpp su ma limee rek damay jum te doomu aadama matul soo limee bàyyi kii nii xam nga rek mu ne ko na naneen te du demee aada daal wéetal na waa Fass aada na waa barki Seydina Mohamed dafa wéetal waa Fass rek bilaay wallaay a ngi déggante téléphone waaw nice ñoo ngi déggante la mu jeewoo semaine rek déggante nañ lan la la wax waaw loolu moom loolu dëgg na yàlla nag tamit mais ma loolu rek mais ma loolu yow sama waay nga ko yow champion nga nan nga gisee ndaw yi tamit muy manifestation yoo xam am na fi ay ndaw di ci yàq ba am ñu ci ñàkk seen bakkan yàq gi ndaw yi yàq manifestation beeg ak ñu ciy jaara di agressé ak yooyu loolu di wax. waaw ndaw man lu ma leen di wax ñu wàññi seen tension quoi parce que réew mi nii ñuy xëccoo réew mi xam na ka moo ko moom réew mi Sëriñ Bamba moom moom réew mi. réew mi kenn ko du politicien yi du ñoom kenn moomu si réew mi réew mi Sëriñ Bamba moo ko moom Sëriñ Bamba mooy xool ku mu neex mu fal ko. Sëriñ Tuubaa moom réew mi moom moom réew mi Sëriñ Bamba moom moom réew mi mooy xool ku mu neex mu fal ko kon gars yi ñuy xëccoo di. indi fi ay di indi yoo xamante ne nii mooy loolu xam na jeunes yi man lan laa leen wax nañu fonk seen i ñaari waajur ah jaamu yàlla xanaa xamoo jaamu yàlla dafa neex barki Serigne Bamba booy jaamu yàlla doo stressé wu essayan comprendre doo am métitu xol maanaam yow lu waay am danga nga koy yéene jaamu yàlla laa lay wax rek moo tax jeunes yi nañu dem jaamu ji yàlla quoi looloo ëpp njëriñ fonk seen ñaari waajur looloo ëpp njëriñ ko man ci loolu man lu ci lu ma gis looloo ëpp njëriñ état yi comprendre nañu jaamu yàlla bu baax lu waay am nag ah lu waay am nangul ko ko quoi parce que kooku noonu lu mu am noonu noonu ba da nga ko war a nangul xam nga li da nga ko war a nangul parce que kooku day julli di jaamu yàlla di ñaan yàlla yàlla di ko may soo bëggee mel ni moom da dem julli ji di jaamu yàlla ngay ñaan yàlla yàlla di la may voilà mais jaamu leen yàlla quoi yàlla di leen may mais bu leen soxorante kenn amul soxorante suñu biir quoi ñun ñëpp ñoo far barki Serigne bàmb alalu aduna du dara waaw. loo fi gis dafay jeex. aduna loo gis day jeex Arafat li day jeex léegi Arafat day tey roi des arènes. yow gëm nga loolu. barki Serigne Bamba. dama jëloon day tey des arènes Arafat si boppam roi des arènes da ngay téye barki alxuraanul karim. dama ko mujj day téye ci boppam. roi des arènes da ngay téye barki Serigne Bamba man borom daaru mooy sama sëriñ te man ay ndigalam laay doxee borom daaru si ay ndigalam laay doxee fonk leen seen ñaari waajur yi ngeen dem julli ji di jaamu yàlla man si loolu laay dox taay man si ndigalu borom daaru laay doxee borom daaru mooy sama sëriñ yaa ngi may dégg maam dundal lu bëri billaay wallaay dundal lu bëree bëree bëree kaddu gu mujj. xoolal nu mu tàngee gis nga nu ñuy nii gis fii nu mu tàngee kon yow bul xam feenee nu mu mel. kaso nu mu mel jommul kenn nag waaw àdduna loo gis rek jaar jaar la quoi. moom mi ngi fan mooy Mbour. kaso bu lañ ko nekk. àdduna loolu yi jaar jaar la waaw te nañu yàlla nag suñu borom teglu ko natt bi nii ak képp ko fa nekk tamit. ñu tegg la nattu bi nii quoi loolu maa ngi koy ñaan suñu borom te billaay saa yu ma julee dama koy ñaanal barke Sëriñ Bamba billaahi Ada champion la nag waa xëy na rek doomu aadama matul quoi te loo ji si àdduna bi rek day jeex yaa ngi tur tamit mun na la yóbbu foo xamante ne nii doo comprendre maanaam siw siw du jàmmi borom quoi billaay wallaay tàllaay mais am nañu yaakaar bu baax a baax a baax dina génn am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que staff bi sonn ci trop waa jibi borom ngor maa ngi koy bégee ah caata caaca tamit maa ngi koy bégee doomu nday sàkket waaw ay ñoom xaarim taalibe ay ñoom abakara ah Papa Ndiaye jeune tailleur bi tamit sama waay la quoi kooku moom foo jaar ma bégee ko ak Modou Mbaye waaw ñooñu ñëpp maa leen di bégee su ma limee rek damay juum bilaay Kalidou jërëjëf gis ngeen ko noonu laay bu Ada Fass nañu dalaloon di xale boo xam te ni yaakaar naa ne gis ngeen ni mu leeral Thiara Fass jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf Elcop Bicop